di tàmbalee tey ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala aaye 159 ba aaye 162 mu nekk ñeenti aaya ñeenti aaya yi <coughs> nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi jàngal ñeenti mbir bu ci njëkk mooy xurmatu kitmaanul ilmi araam na ab jullit di nëbb xam-xam loolu danañ ko jàng ci aaya yi nekk sunu kanam mooy nëbb xam-xam araam na ñëw na ci xadis bu wér yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne man katama ilman aljamahu llahu bi lijaamin min annaar képp ku nëbb xam-xam yàlla dina la ngalaab ngalaabu safara wa qaala abu hurayra radi allahu anhu fi zurufin muayyana lawla aaya min kitaabillahi ma haddastukum hadisan watala tala inna allazina yaktumuuna ma anzalna min albayinat abu hurayra xam ngeen ko kenn ci sahaaba yi waroon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam la abu hurayra nee ci ay jamono bi muy wax wax ci jamono bu metti woon jamono bu tar xam ngeen abu hurayra bokk na ci saxaaba yi ñuy tuumaal bal chia yi sax ñoom dañ ko takfir lu tax li ëpp ci nit ñi dañ naan Abu Hurayra moo mujjee ñëw ci lislaam ba pare ëpp lu mu solo xadis loolu nu mu mën a nekkee waaye biñ koy laaj lu tax bokk na ci tont yu mu tont bokk na ci mooy aaya alquran bi abu hurayra nee na lawlaa aaya min kitaabillahi maa haddastukum hadisan wallahi bu fekkonte nu du benn aaya bu ma gis ci alquranul karim kon du ma nettali benn hadis ci hadis yonent bi waaye jàng bi ma jàng aaya bi yàlla ne inna allazina yaktumuuna ma anzalna min albayinat looloo tax li ma mokkal ci ay hadis yëpp ma génne waaye bu doon du loolu du ma nettali dara ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag responsabilité aaya bu ma jàng yàlla na ñi nëbb xam-xam mbugal ñeen na leen yonent bi ne ku nëbb xam-xam yàlla dina la ngalaab ngalaabu safara mu ne loolu moo wax loolu loolu mooy tomb bu njëkk bu ñuy jàng ci aaya yi nekk sunu kanam ñaareel mooy yustaratu li tawbati man afsada fi zulmihi wa jahlihi aslaha ma afsada bi bayaani ma xarrafa aw baddala wa gayru zalik danañ sàrtal kii tuub bu fekkee day tuub la mu yàqoon ci jamono ba mu réeree la mu doon tooñ ci jamono ba mu nekkee ca ceddo bis bu doomu aadama tuubee la mu doon nëbb daf koy génne la mu doon yàq daf koy defaraat loolu mooy charte bi bépp boroom xam-xam boo xam ne yàlla dalaa nattu woon nga daan nëbb xam-xam bis boo tuubee la nga doon nëbb da nga war a génnewaat da ko war a leer bu fekkoon ne kenn la moo tax am na benn boroom xam-xam bu mag ci ci Nigéria dafa bokkoon ci benn tarixa def ci tarixa bi lu tolloog ñeent fukki at nekk ci kàngam bu gën a siiw ci Nigéria yàlla def mu gis dëkk mu jëlaat dàllam ne fépp fu ma mosoon taxaw conférence pour nit ñi dugg ci tarixa bi danaa fa taxaw conférence pour xam ne lii réer mu taalif benn téere sax mais téere bi amoon nay temps bu ko indi Sénégal dañ koy xotti koy nangu aéroport du fi dugg mais tey nag alhamdulilah am na ko am parce que frontières yi dañoo libre charte yàqkat su tuubee la doon yàq da ko war defaraat ku réer doon yàq bis boo gisee dëgg la nga doon yàq da nga koy defaraat bu fekkoon loo changé la fekkoon loo wax la bu doon loo nëbb loolu yëpp da nga koy leeralaat wa izhaari ma katama li nga doon nëbb yëpp da koy feeñal waa wa aadaai ma axasahu bi xayri lxaq li nga jëloon ci nit ñi sax te du dëgg danga leen ko war a delloo loolu mooy sax ku bëgg tuub ku doon nëbb xam-xam wala nga doon yàq wala nga doon réeralaati walla nga doon jël alalu nit ñi ci diine bis boo tuubee da war a delloo lépp mooy ñaareel ñuy jël ci aay yi nekk sunu ñetteel man kafara wa maata ala kufrihi min saa'iri nnaas yulqaa fi jahannama baada mawtihi xaalidan fi l-azaabi muxalladan laa yuxaffafu anhu wala yunzaru fa yactadir wala yuftaru anhu l-azaab fa yastarix bii moom moo ci gën a doy waar képp ku dee képp ku weddi yàlla man kafara képp ku weddi yàlla wa maata ala kufrihi mu dee ci weddi googu mu weddi yàlla ku mu mën a doon min saa'iri naas ku mu mën a doon yuqaa fi jahannama booy dee ñu lay sànni ci jahannama maa daama damaa weddi yàlla nga dee ci kufur googu nga weddi yàlla booy dee rek direct jahannama nga jëm te lu doy waar mooy boo duggee jahannama dootoo génn xaalidan muxalladan fil asar ñoo lañ naan yàlla naan xaalidina fiha abadan dañ fay dugg éternellement dootuñu génnaat ba pare subhaanallah laa yuxaffafu anhu kenn du la oyofal ci biir safara ñooñu bu ñu nekkee safara kenn du leen oyofal wala yunzar kenn du leen xaar sax fa yaatasir pour ñuy kenn du leen jox sax benn benn seconde pour ñu ne leen wax leen wala wala pour ñu mën a ñu mën leen nangul ngànt abadan waaye mbokk yi ñooñu kenn du leen bàyyi ci biir safara ñuy noppal loolu moo tax weddi yàlla musiba la ci yàlla musal ñeenteel bu ñuy jëlee ci aaya mooy jawaasu dagan na laanul mujahirina bil maasi képp kuy feeñal mooy yàlla nëbbatuwoo di ko feeñal dang daggal nañu ñu rëbb misaal naankatu sàngara dagal na ñu rëbb ko kuy def mbirum góor jigéen dagan nañu ñu rëbb la jigéen dagan na ñu rëbb jigéen juy nuru nuru lu góor dagan na ñu rëbb la ndax ñi ñëpp yonent yàlla muhammad moo leen rëbb jàngeen laana allahu saaribul xamr jàngeen laana allah alwasila wal mustawsila képp koo xam ne dangaa jàdd yoon wi feeñal say bàkkaar diine ji nangu nañu rëbb la ñeent yi mbokk ci kàttanu buur yàlla subhaanahu wa moom mooy nekk sunu dars tey ndax ñeenti mbir yi moom la ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi ñëwee ci dars bi aaya yi aoudu billahi min alshaytan irrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلأنهم الله يلأنهم الله ويلأنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها laa yuxafafu anhum aladaab wala hum yunzaruun yaquulu jalla wa ala buur bi nee na inna allazina gaa yi nga xam ne inna allazina gaa yi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëbb maa anzalna li nga xam ne man yàlla maa ko wàcce dañuy nëbb wala ñuy muur li yàlla wàccee hatta la yuzhiru shay al ba nga xam ne li yàlla wàccee dara du ci feeñ lañuy ñuy nëbb kenn du ci xam dara wala yurafu fa bi bihi dañ koy nëbb làqu ko denc ko ba ñi ñi nga xam ne ñoo ko waroon jot duñ ko jot ñi ko waroon jëfe dootuñu ko jëfe ñi ko waroon xam dootuñu ko xam yàlla nee na ñiy def loolu inna allazina ñi nga xam ne ismu mawsul kon ñi am xel lay waxal lil aqil kiñ doon jàngal da doon wax inna allazina joo gis kafaroo topp ci seeni boroom xalku nanu wax na dëgg de ah inna allazina gaa yi nga xam ne yaktumuna dañuy nëbb maa la nga xam ne anzalna wàcce naa ko min albayinaati ci ay lay leer albayinaat jëm ko bayinaat wa hiya ma yusabitu bihi shay al bayinaat mooy lay wu leer loo xam ne bu ci nit jàppee day day taxaw bu ci nit jàppee day am fu mu wéeru ku ci sukkandiku da am dalil loolu mooy ay bayinaat léegi nag al bayinaat boobu ku ko nëbb lan mooy dal nit ñi mooy dañuy alku maa la nga xam ne anzal naa wàcce naa ko minal bayinaati ci ay lay yu leer nëbbuñu sax lool rek waaye wal huda ak njub jël njubal yàlla subhanahu wa taala maa alal mat alal matlabi alsaxiix li nga xam ne day wane jubluwaay bu leer bi nëbb nañ dëgg gi waaye nëbb nañ sax njub gi wa yusaaidu alal wusuli ilayhi li nga dëgg gi nga xam ne day dimbali nit mu egg ci dëgg dafa am mbir yoo xam ne suñ ko nëbbee rek doomu aadama yi sànku nañ dootuñu egg ci dëgg ñoom ñëpp dañuy alko léegi nag ku def loolu nëbb dëgg gi nëbb li leer ba nga xam ne nit ñi duñu mën a yegsi ci dëgg jël ko nee na bu fekkee ci aaya bi huna maa yasbutu nubuwatu maa yusabbitu nubuwatu muhammad fii mooy luy wone ne di saxal ne muhammad yonent la yàlla moo ko yónni léegi nag ku nëbb loolu ku nëbb loo xam ne day wone ne muhammad yonent la yàllaa ko yónni nga nëbb ko est-ce que nit ñi dinañ xam muhammad tontu bi mooy déedéet nit ñi bu ñu mënul xamul Muhammad est-ce que danañ mën a dund diine yàlla ji nit ñi bu ñu xamul diine est-ce que danañ mën a dund sunna looloo tax ngeen gis Sénégal ñu nekk dëkk bu sànq bu alku quoi parce que dañoo nëbb dëgg dañ leen nëbb dëgg dangay ngay gis jullit bu dund ba dee yenn saa yi ngay wax dara mu ne wallahi lii musuma ko dégg jullit bu am juróom-ñaar fukki at yenn saa yi ngay wax aaya ci alxuraan wala ngay wax benn hadis wala ngay wax dara ci diine mu naan waaw mais yow lii ngay wax nii est-ce que dëgg-dëgg yàllaa ko wax mu ngi ci téere alxuraan misaal rek naa leen jox muraay muuraay bi julli di Sénégal xamee ne jullit bu jigéen dafa war a muur yàggul ñi ko fi tàmbale wala leneen loo lii ay aadaay naar la waay lii du lii benn diine ngeen di toppandoo araab rek mais te ay siècle siècle xam ngeen fii ay borom xam-xam jaar nañ fii lu nekk wax nañ ko fi ay nitu yàlla jaar nañ fi ay ay ay ay ay mais keroog ba borom xam-xam yi commencé génne aaya muraay nit ñi dañoo waaru yàggul dara est-ce que boobu kese la du boobu rek de mën ngaa lim ay ay ay xabdu xabdu julli jël sa loxo teg sa dënn jël càmmoñ bi teg jël loxo ndeyjoor bi teg ci kaw loolu kañ la fi la kañ la fi yàggul ma ba da ngay wax sax bàyyi ne la diinay xale yi yow de léegi ci diinay xale yi nga bokk parce que xale yee ko fi indi xoolal loo xam ne mu ngi ci Buxaari ak muslim loo xam ne yonant sallallahu alayhi wa noonu la jullee ba faatu musul julli wàcca loxo nga dégg benn waaye ne la noo yéen ci diina bu bees ngeen nekk déet nga koy loolu mooy diina bu màgget diina bu bees kay mooy julli wàcca loxo kon lan moo tax sénégalais yi toog ba heure bii lu bari ci diina xamuñu ko c'est ko dañ leen a nëbbu dëgg yamuñ ci nëbbu leen dëkk waaye wal huda ak njub li tax nit ñi mënuñoo jub parce que da ngeen ko nëbb kenn wanu leen yàlla kenn wanu leen yonent kenn jàngawu leen alquran kenn jàngawu leen sunna nit ñi nag bu ñu leen nëbbee dëgg gi ah léeg ngay wax sax am na benn waay bu doon wax ci rajo wala télé ñu ne ko yow da ngay yeewi suñu béy yi ah kon nit ñi ay béy lañ leen jàppe yeew leen di leen utiliser xam nga béy moom boo ko amee sa kër loo koy doyee di rendi rek di lekk mbaa di jaay di faj sa loxo wala sa faj say aajo béy loolu lañ koy jëriñoo de wala wala am na lu ngeen di jëriñoo béy jëriñoo rek léegi nag kon nit ñi duñu ay béy nit ñi ay jaamu yàlla lañ yàlla moo leen bind wàcce leen ci kaw suuf am lu mu bëgg ci ñoom am lu mu leen sant su yàlla nampul woon dara ci doomu aadama yi kon du yónni ay yonent ñaata yonent la yàlla yónni ci kaw suuf ñaata waaw léegi nag ñun yonent yooyu ñëw jàngale mbir yi ba mu leer nañ ay borom xam-xam wala ay nit ñëw ferenkulaayu ci lu yonent jàngale woon nëbb ko ba nga xam ne tey li ëpp ci xeet bi ci lislaam dañoo sànq moo tax yàlla ne inna allazina gaa ñi nga xam ne yaktumuna dañuy nëbb maa la nga xam ne anzal naa wàcce naa ko minal bayinaati ci ay lay yu leer wal ak njub min baadi ginnaaw maa bayyannaahu ba ma ko leeralee linnaas ci nit ñi ñiy def loolu fil kitaab yi ba pare ci téere bi mooy ban téere alquran ak tawraat wal injil ñi nga xam ne dañuy nëb li yàlla wàcce ci téere bi muy tawraat wala injil wala ngaw te wax alquran parce que tey alquran nëbb nañ ci lu bëree bëri yàlla nee na ulaayka ñooñu di def loolu ñooñu nëbb dëgg gi ñooñu nëbb dëgg gi ci tawraat ñooñu nëbb dëgg gi ci injil ñooñu nëbb dëgg gi ci alquran ulaayika ñooñu yal'anahumullah yàlla rëbb na leen yàlla soril na leen yërmande soo déggee ñu ne allaana mooy attard wal bu'd min kulli xayrin wara saa yoo déggee xadis nga jàng ñu ne laana allah tey misaal li ma waa ji doon wax mooy boo gisoon jigéen ñu mees mu jaar ci yoon yow amoo droit ñëw di jaar ci wedd moom ndax ki yàlla da ko rëbb yeneen moo ko wax la ana allahu lwaasila yal na yàlla soril yërmande ki yokk ka war léegi nag nga yow mu nekk sa xarit ku yàlla yóbbu wala mu nekk sa jabar ah? ku yàlla rëbb yàlla da koo soril yërmandeem ak tord yàlla da koo dàq wal buudu min kulli xayri gis nga yàlla da koo soril lépp lu baax yemu ci de war rahma même yërmande yàlla sax yàlla da koo soril ñaata xadis ngeen jàng ñu ne laana xadis ngeen jàng xadis ba muy commencé dañ ne laana allah yal na yàlla sori yéen mën a yal yàlla rëpp ki def lii te nit ñi moom rek la ñuy def tey xoolal yonent naa leen jox rek ñaar yonent dafa ne na yàlla sori yéen mën a jigéen juy nuru nuru lu góor ak góor guy nuru nuru lu jigéen loolu am na Sénégal wala amul tontu leen ma de. yonent bi nee na yàlla sori leen ma ne ki yokk kawaram ak ki ko yokk loolu am na ci réew mi wala am na yàlla rëbb ki naan sàngara ki koy jaay ki luwe kër gi ah ki ko yeb ci oto bi ki ko yeeb bi ki wane place bi ñuy naanee sax ñoo ñëpp yàlla rëbb leen ban moo fi nekk seen réew yëpp wax dëgg yàlla yàlla du mun a am ci réew mi. réew moo xam ne subaa ngoon nit ñi ci alkande ci rëbbum yàlla waxuma rëbb gi sax mais yonent yàlla muhammad moo leen rëbb ñu yonent yàlla muhammad rëbb ñooñu ku yonent yàlla muhammad rëbb doo tërëbbati benn jigéen dañ ko fekk muy mees ca jamono saxaaba ya ndaw si ñëw ba ci moom ne ko yal na la yàlla alak yal na nga mu ne ko subhanallah lan laa def ba may rëbb mu ne ko man su ma gisee ku yonent bi rëbb dama koy rëbb mu ne la laa rek mu ne da yokk mu ne lii gisuma ko ci alxuraan fan la yàlla waxul ci alxuraan yokk araam na amul mu ne ko jàngu alxuraan ne ko wallahi mokkal naa kaamil bi bépp baqara fatiha ba naa si mi ngi sama bopp mu ne ko taril ndaw si commencé tari Quraan ki mu doon waxal toog di dégg nga ñooñu ñoom ñun de ah ñooñu fu ñu amee problème fa rudduhu ila allahi wa rasul dañ koy delloo yàlla ak yonent ndaw si di tari di tari di tari ba yegg ci aaya wa ma aataakum rasulu fa xusu wa ma nahaakum anhu fantahu mu téy loxo bi ne ko doy na doy na aaya bàngoo aaya bi muy teg mu ne yàlla nee na lu yonent bi indi jël leen lu mu tere bàyyi leen mu ne li ngay def yonent bee ko tere mu ne ana hadis bi mu ne ko laana allahu alwasila wal mustawsila ndaw si daal di mu set mu ñun tey boobu see ko def nga wax ko danaan la safu la safu la walla mu ne la tës ndeysaan waaw ñun tey boo gisee ko def parce que xol yi ñoo wow xol yee wow Sénégal xol yee dee xol yi ñoo bekkoor xol yee maral allahu akbar billaahi wallahi taala yi xol yi dañoo maral ci Sénégal loolu moo tax nit ñi ragal yàlla néew yaqulu jalla wa ala buur bi mu ne subhanahu wa taala ulaayika ñooñu nëbbu dëgg ak njub ñooy ñi nga xam ne yal anahumullah yàlla rëbb na leen wa yal anahum rëbb na leen allaa'inuun ñëpp ñuy rëbb man yasdar anhu llaan kal malaikatu wal muminin malaaka yi rëbb nañ leen nit ñu baax ñi rëbb nañ leen picc yi ci asamaan rëbb na leen jàngeen ci xadis yonent bi ne inna al aalima la yastaghfiruhu al malaika hatta al xitaanu fil ma boroom xam-xam bu ragal yàlla malaaka yi dañ koy ñaanal yërmande jën yi ci biir géej njanaaw yi ci asamaan lépp luy dox ci kaw suuf day ñaanal boroom xam-xam bu baax naka noonu la yàlla rubbee boo nekkee boroom xam-xam bu bon noonu lañ lay ñaanalee alkande loolu moo tax nëbb xam-xam mbokk yi ku nëbb xam-xam yàlla rëbb na jàng ngeen sax yonent bi ne saakitu anil xaq seytaanul agros ku gis dëgg noppi Sénégal nag tey moom kenn warul noppi ndax barki démb sax gis ngeen li xew waaw waxuma la sax loolu waaye réew mi moom fi mu nii kenn warta noppi ñëpp war a wax parce que réew mi dafa yàqu lépp a amul dara lu baax lépp te li doy waar mooy ñi nga xam ne ñoo waroon wax kenn ñoom lañ déggut waaw ndeysaan jàngeen ci xadis xadisul qudsi allahu subhanahu wa taala mu jox jibril ndigal mu ne ko demal dëkk sàngam nga alag leen demal dëkk sàngam nga alag leen jibril départ ñëw rek delluwaat yàlla mu ne ko jibril yàlla moo ko gën a xam jibril taalu ko dëkk bi mu ne yàlla dama fa gis nit ku baax rajulun saalih nit ku baax laa fa ma laa fay yàlla mun na ko demal boo demee nga tàmbali ci waa ji mbugal gi na tàmbali ci waa ji jibril mu ne yaa lu tax mu ne parce dafa gis ñu may tooñ kanamam soppeekuwul la ilaha illa allah dafa gis ñu may tooñ man yàlla kanamam soppeekuwul moom waa ji <laughs> loolu tey kon ñun ñii fuñ jëm ñun mbokk yi buñ jëm ñun tey ñaata yoon la ñuy tooñ ñuy mooy yàlla ci télé ci lu nekk ci rajo ci place publique ci sa buntu kër ci sa biir kër nga gis ñuy mooy yàlla lan ngay def da ngay ree lenn saa yi sa nga gis ko kontaan ci mooy yàlla gi kontaan yenn saa yi sa nga gis koo xam ne moom mooy indi mooy yàlla gi ci biir kër gi ne bismillah tey la la tey la ci ci àddina tey la 24 décembre tey mooy bis bi gën a ngeen lu tax xam ngeen lu tax bis bi tey moo gën a ñàng ci bis yi tey lañ ne yàlla am na doom guddi tey ci lañ ne yàlla dafa am doom allahu akbar tey bis boobu garaawoon wala garaawoon moo tax yonent bi mu ne yàlla subhanahu wa taala nee saaga bi ma doomu aadama saaga musu ko saaga doomu am musuñu ko saaga nit musuñu ko saaga mbindeef ñu ne yàlla ban saaga la doomu aadama yi saaga mu ne dañ maa utal doom te loolu tey ñun ñu nekk ci jàkk ji ñun ñu toog fi yëpp ci sa papa am na doom koñ bële te amu fa jabar ndax nga reer leen de buñ fekkoon nga doon ñu ne ko booy sa père mooy ngi wàcc affaire te doo reer billaahi wallaahi taala loolu lañu wax yàlla wa qaalu ittaxaza allahu walada nee nañ yàlla am na doom allahu akbar lu yàlla tontu ah lan la yàlla tontu ci aaya bi wa qaalu ittaxaza allah rahmanu walada yàlla mu ne laqad jittum shay'an idda takaadu samawatu yatafaqqarna wa tanshiqu al ard wa taxirru ljibaal limaada an daaw lirrahmani walada te wa maa yambagi lirrahmani an yattaxisa walada lu tax in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda asamaan sax bi mu déggee loolu dafa raisonné maanaam nanguwul toog quoi bi mu ko déggee ñaxtu na def na mars xotteeku di xar kar di xotteeku ñu ne yàlla suuf mu ne suuf da doon pëttëx ne montagne mu ne montagne yaa nga waaj a daanu ñun waa Sénégal bi ñu ko déggee dañoo peinture tali peinture garab yi jël ay vert jaune rouge blanc rouge di taal ay pétard di taal ay manque paa yëpp dem jëndi ay cadeau pour feetal seen doom yi ñi dem jëndi ginaar ñi dem jëndi ay nag cotisé xale jigéen ñi dem jëndi dangal di feetu ci bis buñ ne yàlla dafa am doom asamaan weddi suuf weddi montagne yi weddi jinne yi sax weddi jinne yi xam nga buñu déggee ñu ne yàlla am na doom lu ñu wax wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinn alallahi ñun yaakaaroon nañu jinne yi ñoo de ñu ne ñun jinne yi yaakaaroon nañ ne nit ak ginne du ñu fenal yàlla wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa sahibatan wala walada taala lañu wax de jinne moo wax de wa annahu li wër tey jinne taala kawe na rabbina sunu màggaayu borom kawe na moom yàlla musta am sahibatan wala walada musta am soxna musta am doom xanaa lu ngeen dee dee jàng ngeen qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad yàlla nee na juruma kenn naka la ñu mën a waxee ne yàlla mooy jur isa dañ koy màggal tey li ci rusu sax mooy julli ci julli ci ñoo koy def julli ci julli ci borom bi subhanahu wa taala mu ne ulaayika ñooñu yal anahumullah yàlla rëbb na leen wa yal'anahum rëbb na leen allaa'inoon ñëpp ñi nga xam ne ay rëbbkat lañ comme malaaka yi rëbb nañ leen nit ñu baax ñi nëbb rëbb na leen picc yi na leen asamaan rëbb na leen suuf rëbb na leen xataa jën yi ci biir suuf sax ndox mi sax rëbb na ñooñu gaa yooyu leen mu ne illa allazina ba mu des ñi nga xam ne saabu dañoo tuub wa aslahu ñu yëwénal ñu defaraat tuub rek du doy de tuub rek du doy man tuub naa dama doon nëbb mbir mi mais léegi tuub naa bàyyi naa ko déedéet yàlla moo ko wax illa lazina lu dul ñi nga xam ne taabu tuub nañ mooy charte bu njëkk ñaareelu charte bi mooy wa aslahu ñu defaraat lañ doon yàq fépp foo jaaroon <laughs> naan nit ñi bàyyi leen julli bàyyi leen woor Eh, eh, màkka jar sa dem wala nga naan leen kum neex nga takk 60 jabar jaaraat fa jaaraatal fi nga jaaroon yëpp leeralaat waaw diine ji nga yombaloon ba nit ñi bañ a jaamu yàlla delluwaatal nga leeral ko wa aslahu maa afsaduuhu ñu leeralaat la yàqoon min aqaaidi naas ci pas-pasu nit ñi leen di wan yàlla ah? ki ki ki ñuuloon fee moo weex fii yëpp ki bëlawoon fee moo zone fii yooyu yëpp min aqaidi naas wa umuri diinihim ak seen mbiru diine yooyu yëpp ñu defaraat bi izhaari ñu feeñal maa katamuhu la nëbboon wal iman bi maa kazzabuhu ñu leeral la ñu nëbboon la ñu doon làq ñu génne ko waaye ñu gëm lañ doon weddi wal imaani bi ma kazzabuhu wa ankaruhu bi ma kazzabu bihi wa ankaruhu lañu doon weddi naan du dëgg te dëgg la yonent bi musul jigéen du muuru góor ak jigéen du dañu ku mu neex nga joxe loxo dañu ne rek eh, eh, bul bul yëg eh, mu ci kii caaxaan yooyu nañ ko leeralaat lu dul ñu def loolu ñii de la yàlla baal waaye ñi deful loolu ñooñu yàlla rëbb na leen ñi yàlla génnewaat ci ñamu rëbboon mooy ñan illa lazina taabu wa aslahu lu dul ñu tuub daal di leeralaat la ñu yàqoon waaye duñ yem sax rek ci tuub leeral waaye wa bayanu dégg de ñu leeralaat mbir mi gis ngeen ñetti charte ulaayika ñi suñ defee loolu suñu tuubee baaxalaat la yàqoon leeral ko wa aslahu mooy ñu yéwénalaat ko la yàqoon ñu defaraat ko bare wa bayyanu ñu leeral na ñun ñii ñoo ko yàqoon su boobaa ulaayka ñi atuubu yi man yàlla dinaa nangu seen tuub gis ngeen gis ngeen danger bi nekk ci nëbb xam gis ngeen danger bi nekk dëgg bu fekkente ne ñii la yàlla wax loolu kon dootul dagan ci ab bu xam dëgg nga koy nëbb dëgg-dëgg la yàlla moo ko moom kenn moomu ko bi subhanahu wa taala mu ne wa bayyanu ñu leeralaat ulaayika ñii fa ulaayika ñii atuuba alayhim dinaa nangu seen tuub wa ana yàlla ak tawaab maay nangu kaafoon tuubi ku tuub rek ma nangu ko arrahim ndeysaan man maa yayoo yërmande ëllëg alaxira te ma dencal ko julli ni rahmaanu dunia rahimul axira wa ana tawaabu rahim man yàlla dong may nangu tuub ku tuub ci man ma nangu ko sunu borom baax na baax goo xam ne lépp loo mën a def ci kaw suuf lu mu mën a doon bu bàkkaar yi tolloon ne fàggi géej boo tubee yàlla baal la jàngeen ci hadis waa ji nga xam ne dafa rey ñaata nit la rey juróom-ñeent fukk juróom-ñeent nit la rey mu dem ci benn boroom xam-xam foofu sax gars yi dañ naan ci aalim la dem moo tax xadis bi dafa doy waar waaye ñaari mu dem ci faqih ah ñu benn ki mu njëkk a dem dafa am xam-xam rek ki mu ñaareel ki mu dem kooku dafa dégg diine bi dégg xam dégg diine ak am xam-xam du benn <laughs> rahimallahu imran سمع مقالتي فوعاها فعداها كما سمعها فرب مبلغ أو من السامع ni dina jàng ba yéenu téere yi fekk déggu nga gis ku dégg tuuti koo xam dafa ñëw tey jël daas mu dem di ko joxi keneen ki muy ki toog këram ñëwal ci dars bi moo ko gën a dégg moom li mu jàng tey fa rubba muballighin aw amina saami'i bëri na ki jottali ka nga jottali moo la gën a dégg li nga ko jottali mbir mi dafa am dégg-dégg gis nga kii dafa am xam-xam rek waaye déggul teg si bi mu ne waa ji damay waa ji ne ko damay tuub mu ne ko luy loo def mu ne ko damaa rey juróom-ñeenti nit juróom-ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñeent mu ko yàlla du parce que teg si la gis ci kaw waa ji rey ko mu nekk téeméer parce que moom teg si ci kaw la yem mu dem ci keneen ku dégg diina faqih mu ne ko damaa rey juróom-ñeenti téeméeri ak juróom-ñeent ma dem ci benn waaye ma wax ko mu ne ma yàlla duma baal ma rey ko muy téeméer yow nag ndax yàlla dina ma baal waa xam na mu ne ko yàlla dina la baal kay yàlla moo ne laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba am na bu des jamia ban moo des dafa am bu mu des istisna kon kay waa ji moo tax jàng diine ak dégg diine du benn loolu mooy suñu problème tey loolu rek lañ am de lu dul lool mooy li doon wax démb ci sa français boobu loolu kese la jàng diine ak dégg diine du benn waa ji ne ko dafa am sart sa tuub bi dafa am sart luy sart bi dangay ngay changer environnement fi ngay dund moo baaxul waaye dëkk bi nga nekk baaxul foog nga changé loolu moo tax borom xam yi naan boo tuubee foog nga changé milieu yenn saa yi sax da ngay changé yére saa yi nga changé liggéey bu ko laajee bu fekkee ci place bi ngay moyee yàlla fa ngay liggéeyee foog nga bàyyi ko su fekkee ci milieu ba ngay def la foog nga changé milieu bi bu fekkee ay xarit la yooy àndal foog nga bàyyi xarit yi moo tax mu ne ko da ngay changé milieu bi da ngay génn dëkk bi dem beneen dëkk nga jaam foofu yàlla bi dëkk bi nga nekk moo baaxul moo tax nga mën a mel nii waa ji daal di changé jël ay bagage am dem bi mu demee ba dara desul mu ngi waaje yegg dëkk ba ko waaji waxoon mu faatu ñu seen malaaka aljanna yeeg malaa safara yi ñëw di ko xëccoo ñi naan safara la jëm ñi naan àjjana la jëm yonent bi nee na yàlla moo yónnee benn malaaka na ñëw àtte leen nan la leen àttee daf leen ne na ngeen natt na ngeen mesurer fi mu jóge ak fi mu jëm su fekkee fi mu jóge la gën a jege ngeen jox ko malaaka safara yi ñu yóbbu ko safara bu fekkee fa mu jëm la gën a jege ngeen xam ne tuubam yàlla nangu na ko ngeen jox ko malaaka yi ñu nag fa mu jëm nga a jege jox ko malaaka yi ñu dugal ko aljanna gis nga kon ku mu njëkkoon rey ki su ko waxoon lii du ko rey te kooku dafa jàng diine mais déggu am rek loolu moo tax ixwatal iman sunu borom subhanahu wa taala ku tuub bàkkaar yi muy bari bari boo tuubee mu baal laa taqnatu la wax min rahmatillah bu leen naagu bu leen yàkkeeku bu leen découragé dafa ne def nga ci lu bon loo xam ne instant bi leen saa sa nga déggu na am ah, est ce que na may julli sax ah déedéet ah jar na ko kay est may jaamu yàlla jar na ko demal nga tuub ki nga ko séqal du nit demal nga tuub boo tuubee yàlla baal la subhanahu wa taala yonent yàlla Muhammad nee na sunu borom subhanahu wa taala day wàcc ba ci septième asamaan guddi gu nekk lan lay wax ku may woo ma wuyu ku may ñaan ma may ko ku may balu ma baal ko yanzilu rabbana ila samaai dunia kulle layl xiina yabqa sulusul leyli al axir loolu la yonent wax chaque jour ak tawbatu ya jubbu maa qablaha tuub day dindi la ko la mu jiitu ah yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha kon illa allazina taabu ndare ñi tuub ku tuub yàlla baal la man yàlla wa ana man yàlla at tawaab maay nangu tuub arrahim maay jëkk maay yërëmee borom bi subhanahu wa taala mu ñëwaat ci beneen aaya muy aaya 161 mu ne inna lazina ñi nga xam ne li waa ji doon wax sànq mu ne inna lazina joo gis inna lazina joo gis kafaroo topp ci seeni borom xalku nanu inna lazina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi wa maatu ñu dee wahum ñoom kuffaarun fekk ay yéeféer lañ ba ñuy parce que dañoo weddi yàlla dee ulaayika ñooñu alayhim nekk na ci ñoom laanatullahi rëbbam yàlla sorin yërmande yàlla nekk na ci ñoom yàlla wàcce na ci seen kaw mbugalam laanatullah rëbbam yàlla yàlla alak na leen soril na leen yërmande gis nga yàlla daf leen ñaanal alkande ne ñii dañuy alku malaaka yi ñaanal leen loolu wal malaayika ak malaaka yi wan naas ak nit ñi ajmaina ñoom ñëpp xoolal koo xam ne dafa dee nit ñi zibilé ah ñu kontaan yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu génnee àdduna rabu àll yi sax dañuy kontaan ndeysaan rabu àll yi dañuy kontaan dañ naan yàlla kii moo taxoon nga téye ndox mi ba ñun ñii mënuñoo dund comme kii dee na ñu ngi lay sant yow yàlla alhamdulillahi rabbil alamin mariam ma mustarihun aw mustaraaxum kii dafa nopp lu ci wala ku noppal nit ñi la ñu ne yonent bi luy loolu lan mooy ku lu ji mu ne mooy ku dee doon jaamu yàlla dem dugg àjjana day noppalu ji lan mooy ku noppal nit ñi mooy ku bon bu dee dafa noppal nit ñi ak ak agresseur buñ ko reyee ci koñ lu nit ñi wax ah amoon nañ benn waaye boo xamante ne day xëy rek jël saisam teg ci diggu koñ bi daal di teg naa koñ bi ku ko séen rek daal di wiiri bi biñ ko reyee ñëpp ak kontaan parce que bala ñu koy rey dafa rey nit dafa jaaxal benn xale rendi ko daggate ko daf ko ci sàkk denc ko bu guddi mu gas di ko suuf ñu jàpp ko nit ñu jàpp ko rey ko moo tax ku bon bu dee ñëpp dañuy kontaan ñëpp dañuy nekk ci jàmm moo tax sunu boroom subhanahu wa taala mu ne inna alladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla allahu akbar moo xam min ahlil kitab wa gayrihim lan lañ weddi dañoo weddi yonent yàlla muhammad dañoo weddi diine muhammad ku weddi muhammad weddi diineem da ngaa weddi yàlla ba pare walam ya tuubu de tuubuñu fa maatuñu dee ala kufrihim ci seen kéeféer anna alayhim nekk na ci ñoom laanatallahi rëbbam yàlla moo tegu seen kaw yàlla da leen rëbb wal malaayika rëbbam malaaka yi mi seen kaw wan naas ak nit ñi ajmaina ñoom ñëpp walisa loola tax njot mbokk yi fahum ñoom matruduuna dañ leen a dàq mabuduuna dañ leen a soril min arrahmati ci yërmande yàlla ku ñu soril yërmande loo jege ñu dàq ci yërmande bu yàlla dàq ci yërmandeem keroog bi yàlla dàqee iblis ci yërmandeem fan la iblis mujje iblis xam ngeen nu muy tekki mooy boroom mujj gu bon fi mujj moo baaxul ixwatal iman yàlla subhanahu wa taala bu la sorilee yërmandeem loolu mooy sori na la aljanna loolu mooy yow jahannama nga jëm moo tax aaya bi bu muy jeex mu ne ñooñu xaalidiina fiiha dañuy dugg biir safara sax fa xaalidiina fiiha safara sax fa eh, mbokk yi wallahi eh, waxuma dugg safara waaye yaakaar naa ne brin almet brin almet rek ku ñu ne woon kaa ñu taal ko brin bi ñu tiimale ko ci sa nopp ba brin bi jeex ñu may la un milliard boo nangu wala beneen almer rek walla nga am nangu benn waaye ñëwoon ne milliard a ngi nii mais damay lakk sa nopp rek mu may la milliard loo koy wax yaag sa milliard yëpp ci pot imagine leen yàlla mu ne ñii dama leen di dugal safara su ma leen fa dugalee dootuñu génnaat Omar ibn Abdul Aziz yàlla na ko yàlla yërëm saa yu xalaatoon safara day jooy benn bis fajar ci guddi njël mu yeewu di jooy ci biir kër gi Omar ibn Abdul Aziz laa wax de xam ngeen Omar ibn Abdul Aziz bi jooy yi méttee soxnaam ak njaboot yi yeewu toog di jooy dëkkandoo yi dégg riir kër gi riir ay jooy dëkkandoo yu yeewu toog di jooy ñëw ci kër gi ñoom ñoom ñu toog bi jooy benn waaye jekki-jekki na ko yarhamuka allahu ya umar ma hazal buka yal na la yàlla yërëm yow umar jooy yi lan la mu ne leen tasawartu yowma alqiyaama dama imaginer yowma alqiyaama rek mu ne fariqun fi ljanna wa fariqun fi sair mu ne ñi nekk aljanna ñi nekk safara mu ne man xamaguma fan laa bokk ñun ñi toog fii ci biir jumaa yi kenn ku nekk ñun toog foo bokk ku nekk ku nekk tegal sa loxo sa dënn nga laaj sa bopp fan laa bokk bu fekkee xamuñu fu ñu bokk est-ce que kon war nañu yokkat est-ce que war nañu naagu bu fekkee ci waa aljanna lañ bokk waruñu yàccaaral dañu war a continuer bu fekkee ci waa safara lañ bokkoon dañu war a dëpp tuub te ñaar yooyu rek moo imma rawdatun min riyaadil janna aw xufratin min xufaril naar ñaar yi rek moo am mbaa safara amul ñetteel mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñii yàlla rëbb xaalidiina fiiha dañuy sax safara sunu borom mu ngi wax ci quran bi mu ne waa safara ñoom ci seen bopp bu ñu jegee bunti safara wa iza raatil mujrimuna annaar sami'u laha taxayyuzan wa zafiran wa shahiqa bu ñuy déggee safara bu ñëwee ba ci bunt bi dañuy dégg ay son yu biir safara ay son ay voix ay baat dañuy dégg yenn saa yi mu naan mel ne sew yenn saa yi ñu dégg muy xaacu baat bu rëy taxayusan wa zafir yenn saa yi muy mel ne ku jooy ku ñu dóor mu jooy jooy yu metti bay yëkkat safara ñetti baat yooyu ñoo nekk ñetti yooyu lay def moom ci boppam lu doy waar mooy yonent bi nee na safara dañ koy seene yowmal qiyaama ñaata seen juróom-ñaar fukki junni seen tuqaadu bi sabiina alf zimaam maa kulli zimaamin sabuuna alf malik yajurruunaha te duñ ko mën a téye juróom-ñaar fukki junni malaaka seen bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ci jàpp te duñ ko mën a téye kon nan la tool te yàlla nee na weddi ko tuubuñu ba dee su leen fa dugalee dun kër xaalidina fiha ba pare mu ne laa yu xafafu kenn du oyofal an hum ci ñoom al azabu mbugal mi laa yu xafaf kenn du kenn leen yërëm sax seconde ndeysaan dañu nekk biir safara di yuuxu naan yaa malik ud'u lana rabbaka li yuxafifa anna yawman min al azab ee Malick moo ñuy soborom mu may ñu rek benn bis ñu noppalu benn bis ndeysaan benn bis waxuñu sax nañu génne mais benn bis nañu may rek benn bis na ko wàññi rek laa ilaha illallah xam nga Malick lu leen di la leen yàlla di tontu ixshaw fiha wala tukallimun nuur leen bu leen waxateeg ma yàlla nañ ci yàlla buñ ci yàlla boole ci yàlla musal mu ne laa yuxaffafu duñu oyofal anhum ci ñoom al adabu mbugal mi wala hum deet ñoom yunzaruun ay yumhiluun kenn du leen yolomal kenn du leen xaar kenn du leen laaj li yaatasiru ngir ñu ngir ñu jële ngànt moo tax yàlla mu ne wala yuzanu lahum fa ya'taziruun ndax tey bu malaaka ñëwoon fekk leen bi safara naan leen waaw yéen na dañuy commencé di laaj dañ leen du laaj kenn du leen yolomal kenn du leen yombalal kenn du wàññi mbugal mi mbokk yi yal nañu yàlla saxal ci dëgg yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori loolu moo doon dars tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ñu dégg ak topp